bëgg wax ci diplomatie ak relation internationale ci projet PASTEF je pense que projet PASTEF dafa résumer lépp Niko ko di waxee PASTEFu lenn rek la mooy lépp looy def nga jiital ci fulla jiital ci fayda jiital ci bëgg sa réew jiital ci li ñuy wax sirri bi loolu nag boo ko jëlee bëgg koo tënk ci diplomatie ak ci relation internationale dafay dellu ci benn kàddu bu ngeen xamante ne ni mën nañ ne ba Sénégal nekkee Sénégal ba léegi tey léegi motive la ci vocabulaire nit ñu bari moom benn muy le mot souverain. Une diplomatie de la souveraineté. waaye bala ñuy wax une diplomatie de la souveraineté bi nga xamante ne nii ñu ngi ko mooñaale ci le projet PASTEF dañu war a clarifier lan mooy souveraineté d'abord ndax nit ñu bëri yàq le projet PASTEF ci moo boobu la ñuy di ci indi ay tappat souverainisme wala souveraineté du botti ñeneen ñi nekk yow kese PASTEF dans le projet de PASTEF dans le projet des patriotes une diplomatie de la souveraineté ou une économie souveraine ou un développement souverain ou un pays souverain nous nous référons à wu ci une souveraineté stratégique et intelligente moi la vous bu dee n'a fait fexe de juróom-ñaar fukki mon moom ko ma jéggaani ko xool nu ma koy matalee ci bitim réew ndax dara matut pays yi la gën a développé sax amuñu souveraineté à cent pour cent donc ici dans le projet PASTEF il s'agit de cette souveraineté intelligente et stratégique maanaam dama koy wax Cheikh Omar di ko wax sama xarit yi professeur Wele man su ma ñëwee Sénégal su ma feebaree li may gën a yomb mooy jël billet d'avion ñibbi faju ji foofu où est la souveraineté en matière de politique amul Sénégal waroon na ku fi feebar ak lu feebar bi lu mën a mel nga am hôpital boo xamante ni boo fa demee dinañ la jël en ca doo mën fay dara Sénégal waroon na am ay université yoo xamante ne nii soo fa noppee jàng li ngay soxlaate ci bitim réew dootul bari xanaa mottali Sénégal war na am doxalante ak Adina, bo Kenini, ni liñu l'Union soxla Sénégal ay entreprises sénégalaises ay hommes d'affaires sénégalais ay commerçants sénégalais dinañ ko agriculteurs sénégalais ay éleveurs sénégalais ay pêcheurs sénégalais nous avons mobiliser la ca des ñu jéggaani ko waaye du Sénégal diplomatie c'est une diplomatie tournée vers la promotion des industries des entreprises et des multinationales internationales mais le projet PASTEF son ambition est dans son arrêt et nous reconvertir ou replacer la diplomatie économique au cœur des enjeux de politique économique et sociale de l'État. Madame ba le made in Sénégal Madame de Sénégal ñu koy Sénégal des Sénégal li ci des ñu beaucoup ko nga le restaurant Mohamed xamante ni restaurant sénégalais au cœur de New York wala ñu un restaurant sénégalais au centre de Paris Voilà, un restaurant sénégalais ci la capitale européenne ou américaine ñoña buñu fa c'est des ambassadeurs de la gastronomie de la culture sénégalaise waye tay bo ay restaurant marocain de fay fekk restaurant italien ay restaurant espagnol ay restaurant turc ay restaurant marocain ay restaurant yoo xamante ni nii ay doxandéem ñoo ko fa et vous me donnez l'occasion ma remercier ki nga xamante ni nii tey fii ñu nekk nii c'est un Sénégalais de la diaspora suma ma moo fi ça ça fait partie de li nga cette diplomatie au lendemain de la victoire des patriotes mon lañ war a jël en modèle maanaam lii tey mu bañ a nekk benn fii ci sénégalais à travers la diaspora sénégalais yooyu faut ñu nekk ñu mën fa ubbi ay entreprise mën a ñibbi si tamit délocaliser seen entreprise pour que suñuy ndaw liggéey ci donc diplomatie boobu ca ñu mën ko tuddee la diplomatie économique et commerciale moo nekk une diplomatie d'innovation parce que cette diplomatie classique de représentation institutionnelle dafa xew bi maanaam ambassadeur bu nekk en Allemagne bu cérémonie jotee mu taxawal fa Sénégal loolu xew na li xew ci jamono mooy li nga xamante ne nii da ngay fexe ba sa doomi réew mën a conquérir le monde entier foo dem ci Sénégal foo dem ci àddina nga fekk fa ay yu Sénégal ñu yore entreprise ñu nekk fa ay tailleur yu mag ñu nekk fa ay styliste yu mag ñu nekk fa ay artisan yu mag ñu nekk fa ay ouvrier mag loolu moy diplomatie bi nga xamanteni moy une diplomatie de développement ci diplomatie de développement bobu nak ñun gis nañ ko ci projet PASTEF gis nañ ko ci projet bi nga xamanteni ni les patriotes du Sénégal mom lañu